non yow laa la wax jàpp loolu jàpp nga ni président de la république dina jàkkaarloog askan wi wax ak ñoom wax ak député yi nga ne dafay fooy xelam yow de wax dëgg yàlla de Papa Ngagne de kaddu Macky Sall kaddu Macky ku ci mere doomam de da wax dëgg yàlla da ngaa da ngaa da xamul lu xew Macky Sall kaddu ban valeur la am ay je vais tu vas rien faire rien du tout te troisième mandat dañ ko fi tere ok voilà alors Barth da nga waxoon ni après màggal gi da ngay demander askan wi ñu envoyer assemblée dama ne après màggal bi. waaw nous allons travailler sur une proposition de loi pour faire en sorte que le troisième mandat ne soit même pas interprétable. askan wi dugg biir assemblée nationale wax nga ko laal wax fan nga ko teg. Pape l'assemblée nationale. waaw c'est la représentation nationale. le peuple y a son sa place. waaw c'est mais dafa am fu mu yem. fu mu yem si la. non li ngay wax nii non xam nga. mais Pape n'a pas appelé à l'insurrection mais li ngay yow yaa ma ne tu n'es pas fan nga ma déggee ma ne askan bi. kaay assemblée nationale. ngeen def ñaawteef non loolu nga wax parce que quand tu envahis l' assemblée nationale fa seen place kan moo njëkk a violé assemblée nationale règlement bi kan moo ko violé yow ils ont mis dañuy indi seen militant dugg leen ci assemblée à une heure du matin ñu ñëw assemblée gars yi dañuy wuu dañuy yuuxu fu ñu ko teg c' est interdit par le règlement. duñ ko teg ñun ñu indi suñu ay nit gars yi bloqué leen ci biti mais dama lay laaj le 23 juin nekkoon fi yoon yaa ngi fi yoon maa ngi fi yoon ñun dugg ñu ci biira ci biti dañ taxaw mais ils ont retiré la loi. ok alors Barthélémy ban troisième mandat ngay wax bi nga waxoon wala beneen ngay wax. bi nga waxoon ni président am na droit def ko. boobu ngay wax Pape Pape waaw. ba ñu egg ci loolu rek incha allah non mais di wax. ba ñu egg nga ma wax ban troisième mandat ngay wax. Barthélémy Pape ba ñu egg ci loolu. non troisième mandat bi nga ni woon mais président de la république am na droit def troisième mandat. nga may wax wala ban nga may wax. Pape yaa koy wax. lu ma la wax daal du dañ troisième mandat dañ koy tere Sénégal. cest nga boo aussi. troisième mandat dañ koy tere Sénégal du ma ci denduwaat. je ne reviens pas dessus. tout ce que Macky Sall est en train de faire actuellement lépp lu muy def contre ses opposants c'est pour balayer et baliser le chemin sur le troisième mandat. mais yaa njëkk a baliser. maa ko baliser ci fan. yow yaa ko njëkk a baliser. troisième mandat bi yaa ko waaw. je te, je te concède ta pensée et tes réflexions moi je reste sous mon principe de troisième mandat pare naa ci wax ci lu ma ci doon wax trois troisième mandat je l'ai dit ici devant toi sur ce, sur ce plateau là. ok alors Barth ban ban combat nga ci nara a nar indi lan nga ci nar a def. ban combat ci ci troisième mandat bi lan. non nañu bàyyi ba gars yi validé ko léegi rek laay ñaan yàlla ma fekke ko te mu ànd ak wér ak wérle ak ak tal ak dal surtout. lu ma ci naroon def dinaa ko def incha allah. d' accord c'est tout alors Barthélémy euh, presque bientôt yaa ngi bëgg a yàgg ville de Dakar euh, am na ñu jàpp ni li ëpp ci li nga fay def daanaka social la dégg naa sax benn chroniqueur bu ñuy wax Siré Sy suivre naa ko ci euh, Seneweb mu ne lu ëpp ci social yi Barthélémy di def ñàkkul ne dafa laxas hmm. dafa la def ci laxas euh, nu mu ci amee xaalis moom personnellement. Euh, social yooyu ngay def nga xam ni da ngay wax na sa jënd ay frigidaire wala jënd ay moto wala def yeneen ak faire est-ce que dafa am leneen loo xam ni daf ci nekk wala da ko def parce que social la dafa bokk ci say prérogatives du ma tontu sa question parce que je vais pas commenter des des actes qui juróom-ñeenti compétence transférée moo am bu ci njëkk mooy social yow peut-être yaa ngi ndekki di añ reer sa kër ak sa njaboot man tamit peut-être même chose mais la, ce n'est pas la majorité des Dakarois et Dakaroises voilà donc euh, du ma ci sori maintenant nag peut-être su leen neexee loolu rek lañ ci gis wante nag gisuñu tamit bourse si social la nekk ba tey. bourse yi mais mais social compétence transférée wala compétence transférée damay laajte rek damay wante de mën naa la wax dara te gars yi waxuñu quoi saa yi bu may posé benn acte Macky Sall toppandoo. parce que Macky Sall ñaataat la def ci euh, ci nguur gi ñaataat da ngeen fii mës a gis Macky Sall woote fii day social fan ba may woote un milliard di ko joxe Macky Sall woote Grand Théâtre bourse de sécurité familiale. boobu pour am fichier électoral la. non mais non da nga ma laaj ma wax la. tontu la non mais loolu laa lay wax nii. ma tontu de sécurité familiale. su kel dama ne xam nga bourse de sécurité familiale dafa am ay critères. waaw. bul sax sori na nga doxantu rek sa koñ yow nga xool ñaata nit ñoo ñoo fa nekk éligible à man s ma lakk jeexu leen kenn kenn woowu leen kenn enquête leen man dama ne dama woote ne leen lii laay joxe moom mu dem Grand Théâtre ne day génn xaw ma 40 milliards di joxe ay 80 000 francs 80 000 francs ne soo génnee dem ci boutique bi fay sa ay bor mu jeex wante koo yëkkati congélateur jox ko wala nga yëkkati scooter jox ko mu dem cak-cak wala nga yëkkati euh, machine à coudre jox ko mu dem liggéey kooku dina xam lan mooy njëriñu mairie Dakar te man ba ma koy def defuma ko. pour am des retombées politiques te waa APR yu nekk mairie dakaar ñu ngi may dégg ñoom dañu indi seen liste ñëpp di jot parce que man tooguma ci mairie dakaar yor fa suma moomeelu bopp dañ ma ko dégg ma ànd ci ak ay gor ci conseil municipal. Mhm. je fais selon ma conscience. man dama fonk doomu aadama. te bu may campagne dama ko wax moo tax ñu fal ma. j'ai décidé de ramener l'humain au cœur de mes urgences et de mes priorités et de mes politiques c'est tout Macky Sall. il a fait mais lépp ak transparence lépp ak transparence non xam nga xam nga pap xam nga pap xam nga ku nga xam ne ni moom wóor na ko ne que ñu ngi koy wut c'est par est-ce que ñu ngi koy wut wala wutuñu ko moom daf ko wóor na ne que ñu ngi koy rëbb mairie Mermoz Sacré-Cœur ba tey ñu ngi inspection dinañ inspection bu dugg boîte vocale duñu fa mës a gis dara parce que je suis sûr et certain d'être surveillé et d'être traqué dama leen ko dul may dama leen ko dul yekkal c'est tout dañu xiif Barthélémy Dias mais wax naa ne ko man du ma bu ñuy lekk man je m'oppose à vous avec des arguments politiques et yéen vous voulez me liquider physiquement ma bañ a ma bañ a fekkee ma yàlla àndu si yàlla moo si àndul rax ci dolli nag ma diwoo diwlin fu ñu may téye xam nga pap man daf ma wóor ne ni que dañ may on me cherche au nom de quoi je vais tomber dans leur piège pourquoi je ne le pas Ils von auditer, réauditer, ils ne verront jamais rien du tout. Parce que je sais qu'ils me cherchent. Ok alors Bart dafa am wax boo wax tout à l'heure concernant le groupe bala ñuy jeexal Youssou Ndour moom moom groupe bi ñëpp xam nañu dafa ànd ak Macky Sall sañ na ko. mais dama bëgg nga jàkkaarlook man nga wax ma groupe bi benn journaliste boo ci may reprocher dara. ki amul loolu c'est pas c'est pas bien kon li très élégant. très élégant même parce que quel que soit le patron de presse ak fu mu ànd ak ku mu di àndal son groupe de presse doit informer vrai et juste man damay man damay suivre fi jàkkaarloo cette émission jàkkaarloo dama que suivre damay surtout suivre Bouba mais il est objectif su doonee dal ci opposition day dal ci kaw opposition. su noogee dal ci kaw Macky Sall mu dal ci kaw Macky Sall. mais donc lan ngay reproché. lu may reproché. lan la vous n'êtes pas le seul groupe de presse. dama ne on a été ici avec vous avec d'autres groupes de presse doon xeex Ablaye Wade on informait juste et vrai ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. pourquoi aucun groupe de presse n'a relaté les violations de la loi qui ont conduit à certains comportements lu tax kenn waxu si. mais te ñu jox Barthélemy mu wax ci. ñu jox keneen mu wax ci ñu wax keneen ak keneen mu wax ci. lan nga bëgg. mais ñëpp wax ci. Pape ku nekk ñu nga wax ci nga ni nga nga bëgg ñu mais Pape amut Pape Pape yi taxaw di man du ma ñëw def émission euh, TFM. mais ku ko wax aussi sa affaire la mais xam nga ku ko mais xam nga pourquoi grand. Pape su nga waxee ko mais xam nga lu tax mais xam nga lu tax. xam nga Pape man mën naa juum waaw mais je t'ai donné mon point de vue mais qui est partagé par une écrasante partie de la population. Youssou Ndour tout le monde sait qu'il est mais Jean-Paul Dias il est APR. oui amut. waaw moo tax su may dugg ci këram damay noppi parce que fayu ma fa ndox fayu ma courant joxewu ma dépense. damay bañ jàpp tey góor gi wante non dégg nga mais loolu amul fii loolu amul fii. mais mais est-ce que xam nga loolu amul fii. Pape moi j'ai connu j'ai connu. le groupe Futur Média. Oui. Observateur. Oui. RFM, TFM, étant un groupe de presse, il critiquait tout ce qui devait être critiqué. Oui. bii rek la woon su su Ablaye mais tey Macky Sall la ñuy def lu ko neex. gars yi di teg seen bët de temps en temps mais am na quoi mais nag xool bul quoi bul mais moo am. Euh, Barthélemy tu penses que man loolu dinaa parce que li nga wax dafa amul loolu moo tax ma la ko. amul amul benn mais bon Pape. mais non non exemple. ok xam nga xale yi bu ñu fi ñëw. kenn andu si kenn andu si. pap pap lu mel nii moo leen fi indi lu mel nii genre discours yu mel ni ngay wax Ousmane Sonko di ko wax moo ko waral. pap discours yu mel ni ngay wax yow Ousmane Sonko di ko wax. moo tax booy di ñëw di sànni xeer fii. je te laisse parler. yi kenn yónneewu leen fii. si non c'est faux. non si kenn yónneewu leen fii. pap xale yi lu ñuy def ñëpp ko ñaawlu. saa yu ñu waxee ni groupe de presse de Macky Sall lan nga bëgg ñu def. <coughs> pap kenn yónneewu leen fi Pape wax naa la lu fi Boubou Ndour waxoon bés bu fi amaatee ma ne la il a raison son outil de travail il doit le xale yi lu ñuy def teguñu ko ci benn dëgg teguñu ko ci benn yoon c'est un sentiment ah. de frustration ok est-ce que Pape xam nga lu gën a bon ci àdduna mooy ngay gis da muy raam di ñëw nga ne je n'ai rien vu quand Abdoulaye Wade était président de la République xel xalaatul ñit di ñëw fii fii xool dafi sànni xeer parce que ñoom seen yaakaar moo tas en partie en se disant on on mérite mieux que ça lu tax xale yi dem ñu Walfadjri pour sànni fa ay xeer damay laajte peut-être mën naa jóg mais damay laajte grand moo tax ñu ngi jaajëfee le groupe Futurs Médias journalistes mais tamit di ñaax tamit à la direction propriétaire soyez un peu plus objectif nag di jégalu nag ci kàddu yi. dama ne di jégalu ci kàddu yi grand di jégalu ci kàddu yi non non j'ai le droit de demander un peu plus d'objectivité on a le droit de demander un peu plus d'objectivité on a le droit de demander un peu plus d'objectivité te wax dëgg yàlla dañ on le demande. dama bëgg on le demande. ci yar ak teggin dama bëgg dama bëgg dama bëgg. Pape non d' accord naa ak non dama bëgg il faut accepter les faits. d' accord mais dama bëgg les faits sont que aujourd'hui il y a une certaine presse qui est vue autrement que comme elle était vue avant. d' accord Barthélémy dama bëgg nga wax ma ban groupe de presse moo gën a objectif GFM fii ci Sénégal. kon aw ma tontu boobu kon. ban groupe de presse. moo gën a objectif GFM fii ci Sénégal wax ma ko. pas la réponse mais parce que amul. c'est ce que toi tu dis. mais loolu moo am. ce que tu dis plus objectif. Pape ce que mais tu dis mais ça n'existe pas grand. Pape xam nga je vais te dire une chose. waaw quel que soit bët leen di gars yi di mën a xoolee. sant leen yàlla vous êtes encore le groupe numéro un n'est-ce pas le, le journal L'Obs c'est apparemment le journal le plus vendu. est-ce que xam nga la TFM objectivité moo ko waral. non nit ñi kenn ah, moomu leen non nit ñi kenn moomu leen. l'observateur n'est pas objectif. je suis désolé arrête s'il te plaît. pas objectif il est partisan et clanique. faut arrêter on sait lire et écrire. il faut arrêter tout de même. Respectons-nous. La RFM, la TFM, la Pengagne, Hassan, non, etc. Niep, Hassan niep, niep. Non, on peut dire. Non, Niep. Pape. Pape. Oui. C'est un sentiment général. Ce n'est pas mon sentiment à moi. Pape, je suis venu vous le dire sur ce plateau ici. Et Youssou Ndour suma mag la suma kilifa la moo tax dama koy dama mais xam nga ni amul benn groupe de presse bu gën objectif GFM. je ne dirai sax ci Sénégal. non je dirai pas je dirai pas non man dama ko xam. non Pape je dirai pas ça Pape je émission ak yow. waaw y a des gens qui me disent soo ko. mais loolu du rek. non mais Pape mais yow Barthélémy loolu du yow rek. mais Pape gars yi xam nga gars yi dañu mel ne. <laughs> mais dama ni la loolu. gars yi dañu mel ne Pape donc euh. xoolal gars yi dañu mel ne du ñu suivre TFM. ma ne leen lu tax ma ne leen seen affaire la ñu ne qui sont désabonnés. may delluwaat ci lu ma wax kàddu yi su xawee ñagas maa ngi leen di jéglu mais il fallait le dire. mais man san ma me dérange mais nag ça ne ça ne concerne pas que votre groupe. man ça ne me dérange pas les autres groupes je peux pas faire la publicité ici. nous demandons à la presse d'être objectif que la presse relate les informations telles qu'elles existent te bañ par parlo alors léegi nag loolu aussi dafa war les acteurs politiques yi mel ni yéen ñu objectif bañ par parlo def ci bari ñoo xam dañuy parparloo. ci naka noonu mais ci objectivité manque d' objectivité di parparloo. Ah am na ay détails yoo xam ni man du ma ci dugg mais xam nga ko. Ah, mais ce qu'il reproche par exemple à à à à à GFM peut-être mais am na ay groupes yoo xam du ñu leen ko reprocher pourquoi loolu mooy objectivité. Pape man de wala da nga bëgg lan nga bëgg. je le dis parce que je suis ton groupe aujourd'hui oui. je ne peux pas parler d'un autre groupe. Oui. je parle d'ici su ma demee peut-être suba ci beneen groupe. peut-être ma waxee foofu leneen. d'accord wante nag quelle que soit ma position. je au débat public. C'est normal, c'est avec Parce que je considère que c'est d'abord l'élégance républicaine. Tout à fait. Et c'est à ce titre-là que je qu'on de vous un peu plus d'objectivité. C'est pas méchant. C'est seulement pour mieux faire. mais tout. mais loolu laa mënut a waaw kon je retire mes propos. D'accord, merci beaucoup. <laughs> merci beaucoup. <laughs> Alors. Barth vraiment émission bi macha allah neex na jeex na ma bàyyi la bu fekkee am nga discours booy message booy passé nga passé ko. waaw mais maa ngi lay remercier ci invitation bi. merci beaucoup di la jégalu tamit parce que je pense que peut-être j'étais un peu égratigné. waaw na. parce que c'est la première fois sax mu dugg ci détail yu mel ni maa <laughs> gërëm ñëpp di sant ñëpp. tout merci di ñaan yàlla yàlla na fi jàmm continuer di sax Sénégal. amiin yaa rabbal di ñaan tamit suñu suñu président Macky Sall na bàyyi ko troisième mandat ndax Sénégal jëm kanam xol yi féex di gërëm ñëpp sant ñëpp. jërëjëf ñu ñun aussi ñu lay gërëm bu baax ak lu mu metti metti man vraiment xam naa ni sax dina am ñu jàpp ni xëy na dafa am lu am sama diggante ak yow mais xam nga dara amu ci yaakaar naa ñu ngi mujj a gisante mujj a déggante ci dernière émission bi def fi ah waaye c'est ça donc amuñu am na peut bu fekkente ni am na am na lu am ci suñu diggante rek peut-être cofeel la nga am ko ci man ma am ko ci yow et askan bi seetaan aussi dañuy bëgg émission bu mel nii ak Barthélémy faram fàccee souvent dañ ñu koy laaj donc dafay am solo aussi parfois comme ñun ñooy seetu askan wi euh, ñu leen koy euh, jox kon ñu ngi lay gërëm bu baax kon mbokk yi mu nekkoon faram fàcce ak télévision Futur Média tey ñu doon ci recevoir.